asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ndigal bàyyeekoo na ci cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko suñ boroom yàggal lool te mu wér wàcc ci cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooree ni jàmbaari Serigne Touba ji mu am bis boo xamante ni nag da ko fas yéene taxawal di bisu sant ak sargal muy la 11 novembre. di bis bi nga xamante ni si la sëriñ Touba tukki woon ñibbisi indil ñu xéewal waxoon ijhal rujuhi ilaa xawmi saadatana wal tax fi naa yow ma jamxil xalq niiraana kooku nga xam ne nag moo tukki woon indil ñu liggéey boobu Serigne Modou Kara am ci ndigal ci Serigne Mountakha ci sant ko cantin woo xamante ni réew mi yëpp taalibe yëpp jullit yëpp ñooy ànd fàttaliku bis boobu di bisub Serigne Touba. loolu yi nag bi mu ci jotee Serigne Mountakha jox ndigal kuréel gu mag gi nga xamante ni moom mooy Hizbut Tarqiyyah ci njiital Serigne Youssou Diop ngir ñu taxawee bis boobu loolu yi tax nag. ñu ngi toog nii ak ki nga xamante ni mooy jëwrin maam Thierno Mbacke imam moom Cheikh Mouhamadou Kara mu fas yéene jottali ndigal yi nga xamante ni moom loo jógee ci Serigne Modou Kara ak kaddu yi nga xamante ni moom lay woowee mbooloo mépp ci bis boobu yi nga xamante ni dañ koo fas yéene amal le 11 novembre fii ci Touba ci kër Serigne Touba gi nga xamante ni moo nekk fii ci Daarul Manaan aousanillahu min asheytaani waxaada li manaafi al awtaani mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi jiital sunu kàddu ci euh, euh, sant Serigne Touba sunu yaakaar teg ëllëg ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér yëkkati sunuy kàddu nag ci ndigalu sunu lépp sunu kilifa di Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni généralu Serigne Touba muy waajal bis boo xam ne ni ko sëñ Jibril nda waxee bisub 11 novembre bii nga xam ni ci la ñuy fàttaliku dellu si Serigne bi jóge ca tukki ba nga xam ne indaale nanu ko ni nga ko waxee léegi rek muy bis boo xam ne ci la ñu muccee bis boo xam ne ci la ñu goree ci sawara bis la boo xam ne kon àdduna bépp war nañ koy màggal waaye nag day mel ni fardu kifaaya la mel ni sëriñ bi kon da koo def defaaleel ko murid yëpp woo ci ñëpp tàllal ci ñëpp loxo waaye nag dëppale koog di ci sargal Cheikh Mahamadul Muntaqa alxalifatul am di taifatil muridiya ànd ko kuréel gu mag gi ni nga ko waxee léegi ci xisbu tarqiya di kuréel gi nga xam ne yaakaar naa ni seen lépp sëriñ Tuubaa la ci la ñuy tàmbale ci la ñuy yam kon bu leen sëriñ Muntaxa dëppalee bi ñu ànd ak Cheikh Ahmadou Kara ci bis bi di ko organiser ànd am kon nag bis bi euh, incha allah la 11 novembre la fii ci daarul Manaan di ci kër Serigne Touba gi di ñaan dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin Serigne bi daal nee na mi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn ndax lu ne Serigne Touba lu ne ñëpp la. ndax na ko seex si dee waxee woon acheikhu ahmadou nicmatun awlaaha hadi al xalaa'iqa kullaha mawlaaha loolu yaakaar naa génn bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn kon nag ñu ngi ci woo mbokki taaliba yëpp ñu dikk ci yar ak teggin eh, di ñaan eh, li ci sëriñ bi di fay mu fay nu ko ci eh, te te te nangul ñu bis bi ba ba ba ba ba ni ko sëriñ bi bëggee rek mu amee mu amee ni di wax mbokki taaliba ñu dikk ci yar ak teggin mm, ak yar bu mat sëkk di leen sant bu baax di leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. baa ngi noonu le 11 novembre lay doon kër Serigne Touba. mi ngi ciy woo réew mi yëpp ak bitim réew. bis bi nga xamante ni mooy bisub 11 novembre bi nga xamante ni ñun donc moo taxoon ñu tukki waaye sëriñ bi nee na da cee fas yéene sargal Cheikh Mouhamadou Mountakha te ñu ñaanal ko ci te loolu ñun murit yépp la war képp koo xamante ni ëmb nga cofeel ak cant ci sa xol jëmee ko ci Cheikh Mountakha ñu ngi lay woo ci bis bii nga xamante ni yoonu murit yépp islam yépp ñooy maase sant Cheikh Mouhamadou Mountakha te sargal ko incha allah la 11 novembre fii ci tubaa Darou Manane ne ko ñëpp teew allah